dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyantoo yéenekaay gi di réew mi quotidien mu xëy di ñu xamal laan ñu njiitu réew mi di président Macky Sall am na lu rëy loo xam ne maanaam ma ngi koy waajal ci réew mi yéenekaay gi nee na ci xëlim ak Assane Samb Macky Sall ab coalition bu mag lay waajal dafay fas yéene samp koo xam ne coalition bi moo koy jàppale ngir mu mën koo wut ci bopp réewum Sénégal pexe yooyu ci la njiitu réew mi di Macky Sall nekk maanaam moo ko tere nelaw ma ngi koy naas te ma ngi koy gi dikk na si dialogue national bi nga xam ne maanaam coow li woon na lool keroog bi nga xamante ni ñoo ngi koy door yor mel ni réew mi dafa nekk ci crise journal bi jaaxal na lool askan wi jamono ji nag fii nga xam ne mooy ci ndakaaru cas communautaire yi ma ngi mel ni tulleeg màlle moo tax journal bii di xëy samp ab ne Dakar ndax duñu ko tëj ci maanaam ndax duñu ko confiné yéen kay gii di vox populi ñu xëy fekk fa professeur Massamba Diouf moom nag daan nay wax ci màggalug Tuuba gi nga xam ne dañu koy fës fas yéene amal ci jamonoy coronavirus daat nay wax ne maanaam occasion la ci ñi nga xam ne ñooy xeex wopp ji maanaam ñu waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy kilifa dini rawatina xalif général des mourides ngir mu mën a jox ndigal ñi nga xam ne ñooy taalibe yi ñu wàccee ko mbooleem loo xamante ni waa kër docteur daan na leen koy sant yéene kaay gii di li quotidien mu xëy di ñu xamal lan ñu xew-xew yi nga xam ne ay xew-xewu diine la am na ñoo xam ne ñoom dañu koy amal ngir seen ngëm waaye nag journal bi na ko jàppee mooy bras de fer ngëm-ngëm ak woppi coronavirus yéene kaay gii di la turbine nee na mi am na ñuul la moom corona dil ko tuddee élection locale yi nga xam ne maanaam ñoo ngi koy dàq dàq boo xamante ni bu amul àpp la ana lan moo ko waral am na si ñoo xamante ni ay complice lañ ndax ñi nga xam ne ñooy maire yi dañ na pata pataral ci mbir mi te Sénégal li ñu fi nemmeeku am na ay élection yoo xamante ni bu doon présidentielle wala élection législative bu ñu ko dàqee ñëpp dégg coow li ne coobay waaye nag élection yii maanaam ñoo ngi koy dàq te kenn waxul ana lan moo ko waral yéen kaay gi di Sud Quotidien xëy ci maître Malick Sall nga xam ne moom lañ dénk wàllum yoon ci réew mi ba ñu ko dénkee bànqaas boobu ba léegi bëri bëri na ay jafe-jafe yoo xamante ni am na ci wàllum justice su passé magistrat Nguur Diop mi nga xam ne jëlee nañ ko Podor ko Thiès te loolu naqari mbooleem ñi nga xam ne maanaam ñooy magistrat yi ak nag kuréel gii nga xam ne moo ëmb syndicat yi ñu liggéey ci wàllum justice ñu dëkkee gréew ba ñu ko commencé léegi toll na ñaari weer te ñi nga xam ne ñooy syndicat yi joxar bi nañ baaraamu tuuma ba tey maître Malick Sall journal bi dikk na si yeneen jafe-jafe yoo xamante ni tamit nemmeeku ko ci maanaam ba ñu dàqee Moustapha Ka ak Samba Seck ci yi nga xam ne defoon nañ ko ci droits de l'homme ci mbiri Karim Wade yéene kaay gi xëy tënk kàddu yëpp ne en tout cas sa maître Malick Sall ba ñu ko dénkee ministère bi ñu dénk wàllum yoon ci réew mi ba léegi nii bëri ay jafeñ-jafeñ yoo xam ne ñoo ngi ko say nemmeeku li ñu nemmeeku ci yéene kaay gii di réew mi quotidien mooy sida bi ci réewum Sénégal ma ngi wàññeeku bu baax a baax ndax nag ci atum 2005 lu toll si ñeenti junni yu fekk ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett amee woon nañ doomu jàngoro ji jamono ji nag maanaam lu toll si junni ak ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar ñoo ko amee lutte contre le sida ñoo ko génnee yéenekaay gi nee na wàllante bi ci lu jëm ci wàllum sida wàññeeku na bu baax a baax a baax ci Sénégal yéenekaay gi de Les Échos nee na nag li nga xamante ni mooy sida bi nemmeeku na ne ñi nga xam ne ñooy prostitué yi maanaam ñiy jaay seen bopp ñoo ko fi ëppale ak góor jigéen ñi ak nag gox bii di Kolda ak Ziguinchor ñoom la mbir mi gën a laal yéenekaay gi de La Tribune xëy na ci conseil présidentiel bi ñuy amal jëm ci wàllum logement Macky Sall nag ma ngi jàkkaarloo ak digg yi nga xam ne diggoon na ko askanu Sénégal ci lu jëm ci mbirum logement maanaam cent mille logements bi nga xam ne moom la ñu dëgmal la ñu koy amal yéenekaay gii di Rewmi Quotidien mu xëy di ñu xamal laan ñu waa Ndakaaru bay boo ñu waajal seen bopp ndax seen oo nee na dina am ay coupure yu am ci Ndakaaru yéenekaay gii di Libération xëy na ci industrie chimique du Sénégal ak xeet gu bon gi nga xamante ni moo fay balle ba askan wi nga xam ne ñoo dëkk Daaru Xuddus ak Mboro ñoom na xeet gu bon googee ma ngi leen di indil ay jafe-jafe ci lu jëm ci seen wàllug wér gi yarama waaye nag loolee nga xamante ni mooy xeet gu bon gi balle ci industrie chimique du Sénégal yàq na environnement bi ci wàllu góog nga xamante askan wa dëkkee ba tey ci biir yéene kaay gii di Dakar Times xëy nag samp ab laaj daat nay wax ne armée sénégalaise ana ñan ñooy gagné marché yi jëm ci wàllum arme yi yéene kaay gi nee na ay milliards yi milliards la ñu si dugal waaye nag ñi nga xam ne ñooy député yi ñoo war a saisir assemblée nationale di woolu ministre bi ñu dénk wàllum armée ngir mu andi ay leeral tontu ci mbir mi ndax ay milliards la ñu siy dugal te nag ab groupe bu homme d'affaires rek ñoom gagné yooyu la marché waa Grand Place xëy di ñu xamal lan ñu douane teg lu toll si téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ay kilo yamba ca Foundiougne yéen kaay xëy ci demi-finale yi nga xamante ni tey jii dina am diggante Leipzig ak Paris Saint-Germain bu 19h jotee journal bi dikk na ci Europa League nee na Inter de Milan ak Séville ñoom ñooy final sunu làmb xëy di ñu xamal lan ñu VIP yëpp ci wàllum làmb ji am nañu ay combat ba mu des Lac de Guiers numéro 2 li ko waral mooy jafe-jafe yi nga xam ne andi woon na ko ci combat bi ñu ko bëggoon a tëggal digganteem ak Boy Niang yéen kaay gi xëy samp ab laaj na Ndakaaru ginnaaw Yaxya Joob Yékini bàyyi na wàllum lamb ndax danañu amati ku mel moom